nee na keroog ba muy jóge ca natom boobee. yëg naa ne itam. yëg na ne yëg na itam ne. ca kaso ba. ca foofee mu nekkan. ña nga doon recensé waat ay niti daara yu nekk foofa. ña nga doon recensé ay niti daara yoo xamante ne nekkan nañ ca kaso ba. ngir xool nuñ leen jéggalee ñu dellu. ngir xool nuñ leen jéggalee ñu dellu. te loolu yëg naa ne moom mii koy dox. te loolu lépp yàlla nga ko jaar ci jëmmi sëriñ Abdou Samad ji. xam naa fa itam ñoo xam ne niti daara lañ. nee xam na fa ñoo xam na tamit ay niti daara lañu. xëy na seen kaa dafa xaw a dëgër. xëy na seen kaa xaw naa dëgër lool. waaye yaakaar naa ne lu bari ci seen gannaaw. waaye yaakaar naa ne lu bari ci seen gannaaw. ak lu nekk ci seen i kër. ak lu nekk ci seen i kër. gannaaw yàlla loxoom bii moo koy def. gannaaw yàlla loxoom bii moo koy def. loolu nag yàlla daa dogal bi muy nekk ci biti. nee na loolu nag yàlla daa dogal bi muy nekk ci biti. xaw ma ko nee na xaw ma ko de. waaye bi duggee ci biir nag. dëgg yàlla ba waxtaan ak sama bokki dongo yam fa fekk. ba waxtaan ak bokki dongoom yam fa fekk. gën naa laa naw. Serigne Abdou Samar Serigne Baara nee na gën na laa naw. gën naa laa jàpp nee na gën na laa jàpp itam. kaso nag. nee na kaso nag. da ngay seetaan télé léeg-léeg. da ngay seetaan télé léeg-léeg. wala ngay déglu rajo. wala ngay déglu rajo. dégg ñu naan libéré nañ ña diw. dégg ñu naan libéré na diw. wala libéré nañ ñaar fukki nit. wala ñaar fukki nit. yow mi xamul kaso. yow mi xamul kaso. doo xam poids boobu lu muy peese. peese. tàgge rek. mi ngi mel ni ngay déglu tàgge. ñuy tàgge nit ñoo xamut. ñuy tàgge nit ñoo xamut. day mel ni nit ñi deewuñu daal. day mel ni nit ñi deewuñu. waaye bis bu ñu tuddee kenn koo xam. waaye bis bu ñu tuddee kenn koo xam. daal di koy tàgge. daal di koy tàgge. sa nopp yi mooy tàng jër. nee say nopp day far tàng jër. waaw kaso nag. nee na kaso nag. boo xamee ba dugg ca. boo sa xasee dugg. ba xam lan mooy génn foofu. ba xam lan mooy dugg kaso xam lan mooy génn kaso. ak ni mu jafee. ak gaay yi niñ ko dëgërale. ak gaay yi niñ ko dëgërale. yéeg ak wàcc yéeg ak wàcc yi. procureur ay wax. procureur ay wax. bu noppee juge bi tontu bu noppee juge bi tontu. duggal fii ak génnal fi ku ci mën a fekk ñaar fukki gor. ku ci mën a fekk ñaar fukki gor. yuy jàngale alxuraan. yuy jàngale alxuraan. nga fexe ba génnee leen. nga fexe ba génnee leen. ñu dem tukki seen ñu dem ñu dem jullee tabaski. ñu dem jullee tabaski ca seenu njaboot. loolu day man ku ko man nee na waay waay loolu ko ko man ci réew mi mbaa ku ko mos a def ci réew mi ko mos a def ci réew mi ginnaaw yàlla ci jëmm ji la nee na ginnaaw yàlla samat ci sëriñ Abdou Samad lan mos a gisa loolu yi yéen ñi nekk ci biti nag yéen ñi nekk ci biti man ngeen a defee ne loolu lu woyof la man ngeen a defee ne loolu lu woyof la waaye kaso moom mook bàmmeel sore wunu de boo fa duggee dañ lay lijjanti rek waaye lijjanti moom sa pexe jeex dootul lijjanti nee na bari na ñoo xam ne itam bu ñu wéete woon ak de la république bu nu weetoon ak président de la république sama tool yi sama sànce bi sama marché yi waaye wéet ak président ca Makka mu ne la lu ma la mën a defal mu ne la lu ma la mën a defal ndax loolu laa ko déggee ca kaso ba ndax noonu la ko déggee ca kaso ba moo président wax la ne la sëriñ Samat lu ma la mën a defal lu ma la mën a defal nga ne ko nga bàyyi sëriñ daara yi nga jàpp mu ne ko ñu ngi ci jot a déglu ñëpp danaa fexe ban bàyyi leen. nga topp ko. nga topp ko. ba ñaar fukki sëriñ daara ak ñaar. ba ñaar fukki sëriñ daara ak ñaar. dem jullee ji seen kër tabaski. dem jullee ji seen kër tabaski. loolu moom. loolu moom. jëf ju kawe la joo xam ne. képp kuy sëgg ci alxuraan képp kuy sëgg ci alxuraan. sëñ Abdou samat amee na rek cant war naa yëg loolu yi.